wa yaqtuluuna te dañu daan rey al ambiyaa ay yonent ya bi xayri xaqin ci lu du benn dëgg yonent boo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni mu ñëw taxaw ci kanam nit ñi ne yàllaa ko yónni nga jël paaka teg ci baatam ne ko deq rendi loola ahlul kitaab dañu ko doon def zalika li tax nag seen xol woowu ba ñu mën a rey nit mooy bi ma azaw ca lañu moyoon wa kaanu yaataduuna te dañu daan jalgate yaataduuna dañu daan jalgate jalgate mooy fekk fi nga xam ne moom la la yàlla tabaraka wa taala rëddal nga war faayam nga dem jéggi ko romb ko kooku mooy dañuy jalgate waaw zalika bi ma azaw wa kaanu yahtaduuna laysu sawa yàlla nee na yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahlil kitaab bi am na ci ahlil kitaab ummatun qaima mbooloo mu jub mbooloo mu jub bariwuñu nag waaye am na yatluuna ayatillahi di jàng aaya yàlla yi ana alleyli ci diggu guddi wahum te ñoom bu ñu ko dee jàng yasjuduun ña ngay sujjóot di jàng di gëm yàlla waaye di sujjóot di jaamu suñu borom subhanahu wa taala ku mel ni Abdullah ibnu Salaam ci ñoom nga xam ne mi ngi bokkoon ci ñoom waaye nangul suñu borom tabaraka wa taala ñëw ànd ak salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñooñu yuminuuna billahi gëm nañ yàlla wal yawmil axiri gëm nañ bis bu mujj ba wa yamuruuna bil maaruf ñoom dañ ñu ngi digle njëkk wa yanhawna anil munkar ñu ngi tere njëkkali wa yusaaricuuna fi lxayraati di njëkkalante lu baax wa yusaaricuuna fi lxayraati di njëkkalante lu baax njëkkalante doomu aadama mënu koo ñàkk def kër këri doomu aadama mënu koo ñàkk def muy mukaabada mooy doomu aadama laqad xalaqna insaana fii kabad comme mënu koo ñàkk def nag li ci gën mooy mu am orientation te mooy yàlla di ko wax ne soo dee kër kër yi del def barab sàngam mooy yusaariuuna waaye nag fil xayraat maanaam bu fekkee ñëppay root na nga fexe booy root ngay sotti ci bërigo ginnaaw nag ñëppay root yow booy root di sotti ci suuf mooy coono ngay am waaye doon noppalu yàlla tabaraka wa taala moo tax ci alquran yusaariuuna mu teg ci fii fil xayraat léeg-léeg nga fekk mu ne jihaad teg ci fii sabilillah moo di kuy root na nga fexe bay def ci barigo waaye di root di sotti ci suuf moom loolu du am solo te doomu aadama nag fokk mu kër kër yi fokk nga kër kër yi benn nga kër kër yi ngir yàlla mbaa nga kër kër yi ngir adduna mbaa nga kër kër yi ngir seytaane waaye kër kër yi moom mënta ñàkk moo tax su fajaree bu ñu ne asalaatu xayrun mina nawmi da ngay gis gaa yoo xam ne dañuy bàyyi seeni lal dem jàppi ñëw ci jàkka ji julli si ndax xam nañ ne asalaatu xayru mina nawm waaye am na gaa yoo xam ne bu ñu ne asalaatu xayru mina nawm ñu xëccaat seen mbàjj ñooña du leen tax a noppalu ndax foofee la leen seytaane fekk la leen pëkk pëkk kaay leen ñu ànd ñu defari suñu yaram bu ko defee seytaane jiitu ñu tapp ci dawa dawa daw ba sori dana leen ñu rukkoo rukkoo yu bari daa di saa waay talal seen i tànk xëcc seen i loxo fuddu boo wax ñu dañuy defar suñu yaram fekk na déedéet nangu ñàkk nangul yàlla moo tax si daan fekk leen fañ tudd ne leen kaay leen ñu ànd ñu defar suñu yaram ñoo ñoom ñu ànd tabarkàlla dañu sonn lool léeg-léeg nday sonn te nag ñeenti rakka yi ñaari rakka yi fajar yooyu ak ñaari rakka yi suba yi moo gënoon a yomb wax dëgg yàlla xel yu métti yooyu te ngeen baal ma ci wax jooju wa ulaayika ñooñu nag nga xam ne dañuy digle lu baax di tere lu baaxut di njëkk leen te def lu baax te gëm yàlla ñooñu mina saalixiina ñi ngi bokk ci ñu baax ñi mina saalixiina mi ngi mi ngi bokk ci ñu baax ñi wa maa yafalu min xayrin nag luñ def ci lu baax képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm alaxira di def lu baax di tere lu baaxut di njëkkalante wu yiw nee nañ li ñuy def ci lu baax fa lan yukfaruuhu deesu leen ko weddil daañu leen ko fay wallahu te yàlla alimun ko xam la bil muttaqina ci ñi nga xam ne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaraka wa taala inna alladina kafaruuna ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla weddi yowmal xiyaam lan tuxniya anhum du leen jëriñ amwaaluhum seeni alal lum bari bari wala awlaaduhum du caageeg seen doom du leen jëriñ lum bari bari min allaay ci yàlla sey an dara bu fekkee da ngaa weddi yàlla loo bari bari ay doom loo bari bari alal mu ne du la jëriñ min allaay fa yàlla sey an dara wa ulaayika ñooñu nag nga xam ne dañoo weddi yàlla asxaabu naar ñooy waa sawara hum fiha xaaliduun ñoom ca sawara wala ñu sax ca sawara wala ñu sax yàlla ñu teel a musal ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla masalu maa yunfiquuna misaalum li ñuy joxe misaalum li ñuy dépensé fii haasi l xayaati dunia ci dundug adduna gi lam bari bari bari kamasali riixin mi ngi mel ni ngelaw fiiha nekk na ci biir ngelaw la sirrun ab sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asaabat ngelaw la jot na xarfa qawmin toolu nit nit ñoo xam ne walamu anfusahum dañoo tooñ seen bopp fa ahlakathum ngelaw la daal di alak tool ba yàlla day misaal bëri na lu muy misaal it ci alquranul karim ndax doomu aadama booy wax ak moom da nga koy misaal wax na ci alquran wa yadribu llahu al amsala linnaas yàlla day saddal misaal nit ñi ndax bu misaalee ki xamul misaal ma jegeel si li nga xam ne moom la xamul ba mu xamee ko ca fii day misaal ku gëmul yàlla ba noppi di dépenser ay mbir nee na mi ngi mel ni ngelaw loo xam ne dafa sedd guyyu ba ngelaw la ñëwee nag dugg ci toolu waa joo xam ne la muy bay mbay ma daa ragal ab sedd mu daal di koy alal ba mbay ma yàqoo nag mu daal di ñàkk yàlla ne wa ma zalamuhumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye anfusahum yazlimuun ñoom ñoo tooñ seen bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp ndax yàlla mu ay loi la tëral rek soo ci jaaree rek mu jox la la nga xam ne mooy résultat ba tubarkalla yaa ayu lazina amanu yéen ñi gëm yàlla beneen na ngoog laa tattaxisu bu leen jëlati bitaanatan conseil technique bu ngeen di waxtaanal min duunikum te bokkul ci yéen ko bokkulul pas-pas mu ne bu leen ko jël laa ya'luunakum waay waay buñ leen dolli xabaalan ak gàttañlu buñ leen dolli ak gàttañlu mooy booy bëgg a jóg ci mbir te fekk mbir ma moom jëm feneen fu ko neexul moom mën na caa dugal ay xalaatam yàllaa ngi laltaayal benn mbir mu am solo muy xaswatu uhud xaswatu uhud muy xeex bi nga xam ne ci la ñu dàqoon saxaaba yi gañe leen ci ba ñu naan yàlla nii naka la mën a amee yàllaa ngi tàmbalee wane li jur résultat yi xaswatu uhud bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min dunihim bu xalaat jógee mu sañ a dugal xalaat salawatullahi wasalaamu alayhi waaj bëgg a xeexi su dugalee ay xalaatam saxaaba yi jàpp ne xalaat yi jub na suñ ko doxalee ba yonent bi di bëgg a fomm jug dugg néegam solu ba dara du lu dem ñu bëgg koo fommaat mu ne fokk ñu dem ah dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi waaye bi nee ma ci yoon nag waa ji waa wàññiwaat mbooloo mi loolu la yàlla wax ne laa tattaxisu bitaanatan min dunikum ñii ngeen day xam ne bokk leen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum lu leen sonal yéen qad badatil baxdaau mbañeel gi feeñ na min afwaayin ci seeni gémmiñ te kat wa ma tux fi suduruhum la seen dënn yi di nëbb ci mbañeel akbaru moo gën a rëy li seen làmmiñ di feeñal qad bayanna lakum leeral nañ leen nag al ayaati yàlla nee na leeral naa nag al ayaati in kuntum taaxiluuna bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca des yéen a koy mottali loolu la loolu la arab di wax al isharatu takfil al aqili junj doy na ko am xel yàlla wax na ba noppi ne xat bayanna lakum al ayati leer nañ leen aaya yi kéemtaan yi in kuntum taqilun du ngeen jëfandikoo seen xel xam ngeen mandarga yooyu ha antum yéen a ñii ulaai yéen ñii tuhibbuunahum ngeen bëgg leen wala yuhibbuunakum te ñoom bëgguñu leen wa tuminuuna bil kitaabi ngeen gëm alquran kullihi léppam gëm tawraat gëm injil gëm sabur yéen wa isa laquukum buñ dajeeg yéen xaalu amanna nañ ñun day gëm nañ wa isa xalaw bu ñu weetee ñoom képp nag addu alaykum al anamila matt seeni baaram ngir bañ leen yéen min al xaysi ngir mer xul na nga leen wax yow yonent bi muutu bi xaysikum dee leen ak mer dee leen ak mer maanaam ko mer ba noppi nga far ne ko nag deexal inna allaha yàlla moom alimun ko xam ne bi zaati sudur li nga xam ne moo nekk ci dënn yi yàlla nee na in tamsaskum xasana in tamsaskum bu leen laalee xasanatun njëkk yéen julit yi tasuhum mu naqari leen ñoom ahlul kitaab wa in tusibkum bu leen laalee sayiatun lu naqari yafrahu biha ñu kontante déglul baax balaaxal quranul karim bi muy wax xasanatun tamsaskum la wax bi ñuy wax sayiatun tusibkum la wax xasanatun baatu tamsaskum mooy su leen raayoon maanaam lu lu neex su leen raayoon képp mu naqari leen waaye lu naqari nag du àgg ci tamsaskum déedéet tusibkum mooy daf leen di laal laal bu métti yafrahu bi ñu door a kontaan maanaam baatu massa ak afaaba ñaari baat yooyu la yàlla jëfandikoo fii mooy li lii naqari noonub islam ci nitug islam mas la koy kontaanloo asaaba muy ñaari baat yoo xam ne kii daf ne bu la njëkk raayoon sax mu naqari ko waaye bala bala moo kontaan nag musiba dugg la waaw su boobaa yafrahu biha ñu kontaan ci wa in tasbiru su ngeen muñee nag wa tattaqu ngeen ragal yàlla laa yadurrukum du leen lor kaydukum kaydukum seen pexe sey an dara inna allaha yàlla bima yaamaluuna ci li ngeen di jëf muxiit yàlla li ngeen di jëf moom ku ko peeg la lépp lu waa ji def rek yàlla peeg na ko subhanahu wa taala mbokk yi yàlla tabaraka wa taala mi ngi tàmbali kon waxtaane alxasawaat muy xeex yi jóge na ci maarakatul jadali wal munasara léegi nag ñu ngi ci maarakatul miidaani wal qitaal te ba mu tàmbalee baqara ba léegi dugg ci ali imran ba léegi ñu ngi doon nett li xeex boo xam ne bii xeexu werante la xeexu werante rek wax diw nii la mel diw nii la mel rek ba fi ñu toll léegi nag xeex boobu mi ngi ci bëgg a jóge nag mu ñëw ci xeex boo xam ne mooy xeex nabbu jaasi nag yàlla tabaraka wa tàmbali taala tàmbalee tataxaddas an qa yataxaddas an qaswati uhud mu bëgg a waxtaan nag qaswatu uhud waaye nag ci biir qaswatu uhud ci la yàlla dugal qaswatu badar lan mooy xaswatu xaswatu mooy xeex xeex ci lislaam lislaam nekkutoon loo xam ne nag day jóg jël jaasim rek kum seen rek dóor la ne la kaay dugg déedéet maanaam maa ngi ci wul ñun ay client li taxoon islam di xeex moom leerloon na ko laa ikraha fi diin diine kenn du ci forcé kenn ne ko kaay dugg ci biir waaye nag li lislaam bëgg mooy xat tabayyana rushdu min al ghayy mooy nañ bàyyi dëgg bàyyi caa bàyyi jub li leer nañ bàyyi ñu leeral ko ba ñëpp dégg ko li leerut nañ bàyyi ñu wane ni leerut ba ñëpp dégg ko ñu bàyyi gaay ñu tànn bu nit jógee nag bëgg a gàllankoor message bi ba du leer te booba nag la lislaam di waxee nag ne jàpp leen ci loxol koo kii mu bàyyi diggante nit ñi ak message bi mu àgg ci ñoom mu leer loolu moo waral saa bu lislaam xeexee rek loolu taxoon mu xeex ndax sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee jógee màkk ñëw Madina daal di ñëw dafa siñeenteeg ñooñu ay pacte ñu toog am jàmm waaye moom comme li muy def mooy jikko yu rafet la yor ku ko leb mu lebal la ku ko ñaan mu may la ku ko tooñ mu baal la kooku day neex dëkkal nit ñi di tuxut di ko fekk si tuxut gi ñuy tuxut di ko fekk si nag naqari xurays xurays sa xam ne bu lii yàggee léegi tey moom du ñàkk ay cli mu ñàkk ay client parce que ñaari kuréel rek ñoo fi nekk bu kuréel bii di yokk rek bee kuréel ma ngay wàññiku salawatullahi wa salaamu alayhi ñu jóg daal di koy songu waxoon naa léegi nag laa ta laa tattaxisu bitaanat min dunikum bu leen jël ku ngeen di waxtaanal te bokkut ci yéen yàlla nee na wa is fàttalikul nag jamono ba nga xam ne ne xadawta xëy nga min ahlika ci sa ñoñ te bawwi u yaa ngay wàcce al muminina way gëm ya maqaida ay barab lil qitaali ngir xare mu ne ba nga xamee ne ñëw nga di wàcce gaa yi nga xam ne ñoom ngay àndal di leen teg fi nga xam ne fi la ñuy xeexe ndax sallallahu alayhi wa sallam moo daan jiite xeex yi moo daan jiite jàkk ja moo daan jiite lépp lu ñuy doxal ci biir madina maanaam lépp loo xam ne ñun dañ koy soxla ñun doomu aadama yi fi mu nekk nii ci wàllu yar ci wàllu atte ci wàllu njàngale ci wàllu lépp lu ñuy soxla fi mu nekk nii ñun rek sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko yoroon ci loxoom boobu ci dara daaw ci faccat sallallahu alayhi wa sallam xëy kon indi ñi nga xam ne ñooy xeex kenn ku ne mën na la yow na nga toog fii yow tam na nga toog fii bu ci kenn wàcc nag ci yéen bu ngeen séenoon yahuudi ak nasaraan yi di daggate sama loxo yi di dagg sama bopp bi lu ne ñu ma koy def ngeen di séen loola bu mu tax yéen ci seen bopp ngeen départ ñëw bëgg maa fekk na ngeen toog fi ngeen toog rek donte gis ngeen loolu loola leen digal maqaida lil qital wallahu te yàlla samiun ku dégg la alim yàlla ku xam la subhanahu wa taala mu ne ko is jamono ba nga xamee ne hëmmat buuroon na bëggoon naa jóg taifataani ñaari mbooloo minkum ci yéen banu salamata banu xaarisa ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk bëgg a dëpp bëgg a dëpp minkum ci yéen an tafshala ci ci ngeen yonjox wala ci ñu yonjox ñoom ñaar yonjox mooy ànd ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci liy nekkee dëpp naa loola mën naa def ci moom bu fekkee ci yow la yaakaaroon doole dafay yoon jox duutu amati la muy def maanaam nga ànd ak si benn waaye ngeen nga ne ko nga ànd ak juróomi nit nga ne leen kaay leen ñu def nangam ngeen ànd ba ci yoon wa ñett ñu dëpp boo moytul yéen ñaar ña ca def la ngay wax mooy waa ji ñun mënuñoo réussir affaire bi ba dafa dëgg loolu la gaa yi bëggoon wallahu te yàlla nag waliyuhuma mooy seen kilifa cee ñoo dem rek wa alalaahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru almuminuuna ñi nga xam ne ñoo gëm ñu daal di ñëw ca xeex ba ba ñu ñëwee ca xeex ba yàllaa ngi nettali nag mu teg foofu xaswatu badar xaswatu uhud mu dugg nag ci xaswatu badar ndax daf leen a dugale ñoom ñaar ndax xaswatu bii di xeex bii di uhud bi ko saaba yi xeexee dañ leen a gañe xare bee di badar bañ ko xeexee dañoo gañe te bee nekkoon nañ trois cent treize képp ñee nekk junni ñu gañe leen ñoom trois cent treize tey nag seen nombre gën a bari ba noppi ñu gañe leen yàlla di netti leen doo ñaari xeex yi ndax nga yëge ci ne gañe gi leen gañe tey du yàllaa ko def yàlla dafa bëgg wax ne leen yéen yéen a gañe na seen bopp tey kero ba ngeen gañee nag mën a loolu nañ ko xool ci biir nettali bi bu baax a baax a baax moo tax yàlla dugalante ñaari xeex yi moo tax dafa tàmbali bii rek daal di fay def deux points commencé indi bële wala boog entre parenthèse mu ne wala qad nasarakum allahu yàlla dimbali woon na leen bi badarin ba ngeen di xeex badar wa antum te yéen azillatun as mbooloo ngeen woon trois cent treize mu dimbali leen ngeen gañe ñu bari fattaqullaha ragal leen yàlla laalakum xëy na taskuruna ngeen sant ko beneen yoon ngeen gañewaat su ngeen xeexee ni ñu gañe leen mooy taqwa ragal yàlla gi moo fa manqué wala iman mu ne yonente bi salaa sallam ca xaswatu badar ba tey is jamono ba nga xamee ne taqulu lil muminina yaa ngay wax ñu gëm nga naan leen alay yakfiyakum mu ndax du leen doy an yumiddakum mu dolli leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin ci ñetti junni ñetti junni minal malaayikati ci malaaka yi munzalina wàcce leen asamaan maanaam bi mu ñëwee nar xeex badar nekk trois cent treize salawatullahi wasalaamu alayhi ñaanal leen ñaanam yu rëy yëpp ba mu noppee daf ne leen waaw su fekkee da ngeen di xeex yàlla wàcceel leen ñetti junniy malaaka ndax seen xel du dal ñu ne ah loolu mën naa am salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen balaa ah kay mën naa am kay intax mu ne sart yi nag nii la in tasbiru su ngeen muñee wa tattaqu ngeen ragal yàlla wa yatukum gaa yi song leen min fawrihim haasa léegi léegi nii mun ha mu ne mu ñetti yi amee rek yum ditkum mu dolli leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin ci juróomi junni min al malaikati weesa na salaas alaaf kon ñetti junni juróomi junni malaaka musawwimiina malaaka yoo xam ne dañ leen a mandargaal jàngal leen xeex ba ñu mokkal xeex te kat mbokk yi benn malaaka doy na ci xeex jibril waat naa ci suñu borom tabaraka wa taala bu àdduna tukki israfil mooy wal bufti moom képp du ko bokk ak menn malaaka waxuma laa nag ñuy xeex yàlla wàccel leen juróomi junniy malaaka moo tax yàlla teg ci lu am solo wa ma jaalahu llahu yàlla defut loolu illa busra lakum lu dul bégale leen ko lu dul bégale leen ko wali tatma inna qulubukum bi ak it seen xel dal seen xol dal ndax kuy xeex te sa xol dal nga jàpp na yaaman ki ngay xeexal pour nga gañe ko day yomb waaw di xeex ak nit jàpp ne yaa ko man pour nga duma ko day yomb waaye di xeex ak nit jàpp ne moo la man it pour mu duma la da koy yomb gis nga léeg-léeg ci jamono rek football kat yi léeg-léeg ñu koy def ak équipe di football ak morom ja jàpp ne moo ko war a man daf koy duma waaye bu jàppee ne ki may football moo ma war a man dalay duma moo di kon yàlla su wàccee juróomi junniy malaaka plus trois cent treize yi saxaaba yi nekk ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañuy wax ne añ ñun kay buñ xeex ak junni man ko mooy ngóob mu ne yàlla loolu bi mu koy def daf ko def rek defu ko lu dut busra lakum wa li tatmainna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal munta jóge fenn fenn fenn fu dul ci yàlla tabaraka wa taala yàlla mi nga xam ne al aziz mooy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ na koo def al aziz azza yaizu al hakim yàlla mooy ki nga xam ne moo xereñ ba lépp loo loo xam ne def na ko rek doo ci gis benn njuumte li tax nag mu boole Quraysh ak muslim mu ne ñu xeex lu tax mu def ko mu ne li yaqataa ngir mu dog tarafan askat min alladina kafaru ñi weddi yàlla maanaam ñi weddi yàlla yàlla wàññi seen force tuuti aw yakbitahum wala mu alak leen fa yanqaliboo xaayibina ñu delluwaat seen kër mu daal di indiwaat nag ci xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud mu sat ci tuuti mooy ci xaswatu uhud salawatullahi wasalaamu alayhi day xeex gaa ñi bi ñuy xeex moom ci boppam ñu dóor ko damm bëñam mu daanu ci benn kàmb maanaam sabata fi sahihi muslim an annabiya sallallahu alayhi wa sallam kusirat rubaiyatuhu yawma uhud wa sujja fi raasi dañ koo xaañ damu bañam ñeenti ba ñu ci kanam benn bi ñu dam ko mu daal di deret ji tàmbali di wala di wàcc di toq moom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñii day duutuñu sowe mukk alku nañu ab yonent ko way xaañ yàlla nag wax fii wax joo xam ne waxu tawhid dëgg la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mii shay un dara aw yatuuba alayhim wala nga leen di baal wala mu leen di baal moom yàlla aw yuazibahum wala mu leen di bëggal fa innahum ñoom daal zalimuna tooñ nañ rek maanaam yonent gi ne ci yow ba tax nga nekk yonent loolu xaañuñu ko loolu damuñu bañam yow ci sa jëmmi bopp ji lañ damm sa bañ te yow nag en tant que nit nit sa cadre bi lañ la la ñu xaañ nubuwa gi ci boppam nag du moom lan xaañ nubuwa gi tax nga nekk yonent loola mënuñu koo xaañ muy loo xam ne tawxid bu doy war la mu ne kon nag laysa lak min al amri shay mbir mi amoo ci dara tooñ nañu daal man yàlla maa yor mbugal man yàlla maa yor baale su ma neexee may baale su ma neexee may mbugale waaye joxuma keneen mu war a baale wala muy war a mbugale mbugale ak baale man maa ko yor gis ngeen kon ni yàlla tabaraka wa taala def yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu di foo xam ne ñaare yàlla du fa xajal kenn subhanahu wa taala muy nguuram gi nga xam ne moo ko moom muy coobareem gi nga xam ne moo ko moom ñu ngi may wan ne waxtu bi agsi na ci wàllu jeex insha allah tabaraka wa taala ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu baaxe ba ñu dajawaat fii ajjuma jële di ñëw tàmbalee ko ci aaya ñaar aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ndax wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli ci wàllu xarala wi seen mbokk Pape Dia ci waxukaay bi seen mbokk Alioune Sall ci teewaayu professeur Ousseynou Cissé rajo Dunia dellu si na ci seen tafsir bi mu leen defal ajuma jot ci waxtu wi alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم mbokk julli ñoo ngi leen di ziyaara ci bis bu tedd bii di ajuma di sangu bés yi di ñaan tabaraka wa taala yàlla nangu suñuy ñaan nangu suñuy yëngutu te barkeel suñuy liggéey dellu seetu nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru quran bi leen isaatu dunia sawtul qalb di defal ci ajuma jot ci waxtu wi dikkoon nañoo ak yéen ci saar boobu di ali imran ba ci aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci sama borom doon waxee walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard yaghfiru liman yashaa wa yu'azzibu man yashaa wallahu ghafurur rahim yàlla di wax ne maa moom li ci asamaan moom li ci suuf maay jéggal ku ma neex maay mbugal ku ma neex yàlla mooy ki nga xam ne mooy jéggalaakoon bi mooy yërëmekat bi yàlla ñu yërëm ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya téeméer ak fanweer ci saar boobu di suratu ali imran yàlla na yàlla boole ñu defal dégg ak topp ak cër yu sawar a jëfe saar boobu di ali imran tey fi ñu ciy tàmbale mooy fi yàlla y waxee yaa ayu allazina amanu laa taakulu riba adaafa mudaafa wabtaqu llaha laalakum tuflixuun yàlla nee na yaa ayu allazina amanu ee yéen ñu gëm ab woote la su ne yaa ayuha allazina amanu mooy dafa am groupe bu mu woo mooy ñi nga xam ne nangul nañu ne moom am na nangu nañu ne moom xam na nangu nañu ne moom ku mat la moom tabaraka wa taala mu daan leen di woo ci yaa ayyuha allazina amanu woo na leen ci yaa ayyuha allazina amanu ci alquranul karim ci juróom-ñett fukki barab ak juróom-ñett yoo xam ne yaa ayyuha allazina amanu rek lay wax tabaraka wa taala te it nag yaa ayyuha allazina kafaru benn yoon dong la ko wax te ma ngay am bu yowmal xiyaame yaa ayyuha allazina kafaru laa taxtasiru al yowma yaa ayyuha allazina amanu bi ñu nekk nag muy fukkeelu yaa ayyuha allazina amanu ak juróom ba ñu tàmbalee ca baqara ba fi ñu toll waaye su dee ci ali imran moo nekk juróom ñaareelu yaay lu si na amanu kon yàlla ta juróom ñaari yaay lu si na amanu am ci bii nekk ñeenteelu yaay lu si na amanu muy wax joo xam ne kon lu jar a bàyyi xel la di déglu suñu borom tabaraka wa taala ndax saa bu ko waxee mu ngay bëgg a tere wala su ko waxee mu ngay bëgg a digle tey nag day tere yaa ayyuha allazina amanu ee yéen ñi gëm laa taakulu bu leen lekk ar riba riba bu leen lekk riba baat bi olof daf koo jël rek waxe ko noonu riba mooy lan mooy soo leblee téeméer ñu fay la téeméeri dërëm ak benn benn dërëm boobu ki la ko jox jox na la riba yow mi ko lekk lekk nga riba foo ko dugal ci sa alal da ko yàq dërëm boobu muy riba mu ne bu leen lekk riba adaafa mudaafa muy lu ñu fulande di ko fulande fulande mooy day yokk loolu riba la woon ndax ñetti riba ñoo am ribal nasiya ribal jahiliya ribal fadila mooy da ngay weccoo ak nit li ngeen di weccoo nekk benn xeet mu jox la ci lim yor lu ëpp li nga ko jox yow lam la tegal riba la maanaam ceeb mu jox la kilo ceeb nga jox ko yow kilo ak liibar liibar bi nga ko tegal riba la ceeb yépp nag benn xeet la naka noonu loolu benn riba la mu am riba bu ñu tuddee nasi'a riba nasi'a mooy ki la lebal da laa lebal juróom fukk nga war koo fay juróom fukk ak ñetti dërëm ñetti dërëm yooyu nekk riba waaye ba nga xamee ne fay jot na mu ñetteel riba bi muy ribal jahiliya dafa ñëw ne la damay fay si war laa fay fukk ak ñett waaye yoruma nga ne ko kon bu weer wi deexee nga may fay da nga ciy yokkaat yeneen ñetti dërëm weer dee mu ñëw mun laa fay mu yokkaat yeneen ñetti dërëm soo dee seetlu da ngeen dem ba mu yàgg moom bor bi dootul doon lu muy attan mu nekk adaafa mudaafa kon li gën a wóor mooy yàlla tabaraka taala dafa tere loolu riba nag yépp lu mu dugg daf koy yàq moo tax léeg-léeg suñu mbokk yu jigéen yi ñu war cee bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóole ñaar ñuy sëy dafay jafe lool suñu borom tabaraka taala tëral daa di aaye ci saar bii ma nekk daa di aaye ci aaye ji ma nekk lekk riba riba nag juróom tax nañu araamal ko moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko juróom yi dañ koy daldi am mooy alalu jullit yi day nekk lu ñoŋ ñaareel ba jullit yi dañu daal di wuti nag foo xam ne bu ñu fa duggee mën faa amee fàggu téef gu lew ñetteel ba mu faddal leen maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab jullit ci noonoo ñeenteel ba mu saril jullit bi ci lu ko yóbbu ci alkande waaye juróomeel ba mu ubbi buntub albirra wal ihsan kon su riba dañee rek bunt yi mooy ubbeeku waaye su riba ubbi ko bunt yëpp day tëju juróomi bunt yi ma wax yëpp day tëju looloo tax tabaraka taala aay ci alquran riba waxaat fële ne su ngeen ko bàyyiwul nag déclaré naa leen guerre maag sama yonent ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum muminin su fekkee jullit ngeen bàyyi leen ko su ngeen ko bàyyiwul déclaré naa leen guerre incha allahu bu yàlla defee ñu dajewaat fii ci wàllu waxtaan wala ñu tuddee risaal soxlay ni daañ leen jéem a yokkal buntu boobu di riba yàlla tekki ne wattaqullah ragal leen yàlla laallakum ndaxte tuflixuuna ngeen sowe ragal leen yàlla ndaxte ngeen sowe wattaqu naara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne uiddat waajal nañ ko ba mu jekk muy xaar ñu muy xaar lil kaafiri ne ñi weddi sawara ne amut ñooñu lay xaar ndax duñ ko waajal ma ne kon dégg nga tabaraka wa taala wax fi wattaqullaha wax wattaqu naar ragal yàlla mooy jëf ay ndigalam bàyyi ay teram ragal sawara mooy moytu ko ba lay tax nit di fa dugg loola doo ko def xam ngeen ne ñu ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddee courant sawara la ñu ngi dëkk ci kër gi li ñu tuddee gaz sawara la ñu ngi dëkk ak almet almet moom léeg-léeg sax saa su ne ñu ngi ci suñu poos waaye nag daañ ko moytu moytu yoo xam ne léeg-léeg ñu nekk ak almet ñetti weer duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ak courant ci kër gi juróomi at du ci jàpp kenn noonu ñu leen di moytoo ñoom ñett ku ko moytoo sawara mucc ci ñoom waaye soo leen bàyyiwul xel boo moytuwul soo leen ko ñoom ñooñu koo ci jum rek dalay gaañ ñi nga xamee ne boo ci jumee dalay gaañ nga di leen moytu noonu la ñuy moytoo sawara wattaqu naara allati uiddat lil kafirin wa atiu llaha te ngeen topp yàlla te ngeen topp yàlla war rasula ak yonentam bi yonentam bi laallakum xëy na turxamuuna yërëmees leen laallakum xëy na turxamuuna yërëmees leen su ko defee kon topp yàlla